dañ fi daje pour installer bureau boo xam ne jigéen yoo xam ne ñoo nekk APR Ngoundiane ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko moom muy bureau boo xam ne tey jii day participer ci li ñuy wax leadership féminin en milieu rural xam nga parti yi dañoo am problème mooy leadership féminin dafa yem ci dëkku kaw yi ci dëkku taax yi donc ñun tey jii dañoo bëgg suñu jigéen yi jigéenu APR yi participer ci politiku dëkk bi moo tax tey jii ñu installé leen bureau bi ñu mën a yëkkandoo yëk yëk yëkkatindoo di dóorandoo pour que parti bi vraiment mun a jëm ci kanam parce que comme ni ñu ko waxee parti bi munul dem sans jigéen yi waaye dafa am ñoo xam ne tey jii dañoo bokk nag ñoom Benno Bokk Yaakaar ñun dañoo considérer ko Benno Bokk Yaakaar Ngoundiane mosul exister wala tur bi rek moo fi nekk. parce que dafa am ñoo xam ne dañuy utiliser Benno Bokk Yaakaar pour seen propre intérêt ñun nag APR Ngoundiane nuñ duñ ko duñ duñ ko nangooti lu mel noonu parce que président de la république ñun kenn mënuñoo nax tey jii am nañ koo xam ne ñun ñoo àndoon moom nee na day demal boppam ñun dañoo wax ne loolu bettuñu parce que mënoon nañ ko yàggoon nañ koo xaar boo gisee xam nga dafa am loo xam ne ñun amaguñu ofil euh, euh, amaguñu position officielle mais en tant que politique am na information yi ñu am donc loolu dafa nekk loo xam ne euh, ñun yàgg nañ koy xaar parce que 2014 yu mel nii moo taxoon ñu dumooyi instruction parti bi parce que dañoo xam ne ki fi nekk day utiliser day utiliser le le euh, Benno Bokk Yaakaar pour ses propres intérêts mais servirul servilul Benno Bokk Yaakaar lool la monsieur le maire la ah, parce que loolu loolu moo tax tey jii ñu newoon président de la république ñun mënuñoo ànd ak ñoom parce que ki fi nekk musul servir Benno Bokk Yaakaar au contraire il se sert de Benno Bokk Yaakaar kon tey jii euh, mun naa ne li li li tubaab di wax l'histoire nous a donné raison parce que lii yàggoon nañ koy xaar donc c'est au membre du parti man la direction du parti mu ñoom ñooy jël seeni matuwaay ba xam ne ëllëg si biir Euh, euh, mu mbañ leen a bett ñun nag madame la représentante du ministre dafa am li ñu la bëgg a yóbbante ci ministre bi dina baax trop mu am doomu Ngunjaan boo xam ne day figure ci liste benn Bokk Yaakaar ci législative yii di ñëw loolu dañ koy ñaan parce que bu ñu amul doomu Ngunjaan ci liste yi dafa am loo xam ne day des monsieur le président de la république may nañu conseiller mais dañoo bëgg mu may ñu député loolu lañ bëgg te loolu dañoo bëgg aussi tey ji vraiment yóbbante boobu nga wax ko la docteur Augustin Tine man du ma ko yóbbante Assane ndax Augustin xam naa ko mun naa Assane yow da ngay da ngay défendre sa localité mais yow madame Aïdara dama la koy yóbbante waaw yow la ministre bi yónni kon yow dama la koy yóbbante Ngoundiane bëgg na doomam figurer ci liste euh, élection législative yi di ñëw liste député yi donc loolu euh, euh, pour ma terminer rek pour ma àggale mooy jigéen yoo xam ne ñoo fi nekk wala ñun ñëpp inscription liste électorale yi commencé nañ donc comme madame Aïdara nu mu ko waxee nit booy xeexi da nga yokk sa da nga yor sa kon ngànnaay bi mooy carte élec électorale bi boo inscrirul doo ko am kon ñun ñëpp nañ dem dem inscrire ji donc xaar élection yi ñëw ñu votel massivement le président de la république pour mu am une majorité confortable à l'assemblée nationale di xaar aussi élection 2019 yi di lancé un appel aux jeunes ñoom aussi vraiment ñu inscrire ji pour que xaar élection yi ñu mën a am vraiment euh, une une une euh, nu ñu ko waxati une victoire éclatante di terminer di terminer ci situation bu fi nekk surtout parce que mënuñu ko bañ a wax mooy la ressource minière boo xam ne moo nekk sur le sol de dans le sol de Ngoundiane le carrières parce que ñun xam nañu carrière u Ngoundiane jëriñul waa Ngoundiane dara wala dafa am ñi muy jëriñ wala une partie te loolu loolu madame dara il faut le ministre Augustin àggaleel ñu ko le ministre de le ministre de mines le ministre Aly Ngouille Ndiaye mu àggale ko président ñun dans ngeen may ñu ngeen may ñu ñunu président de la république bu mu fi ñëwee le 11 juin 2011 boobu nekkagul président fii Ngoundiane daf ñu waxoon man man géologue la maanaam affaire mine moom la jàng donc yéen waa Ngoundiane man bi may def bi may def bu may jàngi université dama doon ñëw ci seen carrière yii di def samay mémoire donc loolu président moo ko fi waxoon mu ne accompagner leen ma bu ma jëlee nguur gi dinaa def tout pour que problème yi nekk ci carrière yi carrière bi ma faj ko ma saafara ko kon tey jii am na lum ci saafara naam am na lum ci saafara mais des na. réforme code minier waaw réforme code minier bi loolu dañ koy rafetlu. mais li ñu gën a amal solo mooy tey jii la programme social minier boo xam ne nguur gi da ko fiy teg nguñaan gis ci boppam maanaam suñu ndaw yi am liggéey ci carrière bi suñu ndaw yi surtout ñu am liggéey ci carrière bi loolu daf cee bokk le volet sanitaire maanaam wergu-yaram bi carrière bi dañoo dañoo war a gën a dugal loxo ci seen ci ci ci ci wàllu wergu-yaram bu nguñaan parce que aussi il faut le dire poussière boo xam ne moom mooy jógee ci carrière yi n'est-ce pas daf indi ay maladies yu bëri bëri yu mal maladie respiratoire kon loolu loolu il faut président xam ko pour terminer aussi éducation bi maanaam njàng mi njàng mi aussi il faut que carrières yi dugal ci gën dugal seen loxo loolu dañ koy ñaan président que Ngoundiane am un programme social minier à lui loolu rek lañ ñaan ñi leen di remercier jaajëf mais du tere également ñu préciser enjeu local dafa wute ak lu ñuy wax enjeu national bi nga xamante ne jot nañ ay instruction au niveau des locales dafa am lu ñu ñoroon moo taxoon ñu dumóoyu waxu Macky sal pour ànd ak ñeneen pour mën a gagner la commune de Ngoundiane te loolu mu ngi fi ba léegi réalité bu taxoon ñu am engagement boobu c'est les mêmes réalités qui sévissent jusqu'à présent à Ngoundiane kon bu ñu demee ba 2019 au niveau des locales képp koo xamante ne pare nga pour ànd ak ñun pour ñu jëlee fi ñi fi nekk pour jël la commune de Ngoundiane nous sommes ouverts pour ànd ak yow loolu dafa nekk loo xam ne dafa war a leer te dañ ko war a préciser terewul également la président nous a demandé de reconforter la base de la coalition Benno Bokk Yaakaar képp koo xam ne da ngay jàppale Macky Sall nga jàppale ko ci biir coalition bi mbaam nga xam nga koy jàppale feneen pare nañu pour tallal la loxo nga nekk koo xam ne da ngay ñëw indi say baat njot ci lu ñu am pour jàppale Macky Sall looloo tax du ma dépassé du ma avancé sama sant kii nga xamante ne moom Mbaye Faye lu ko waral mooy doomu Ngunjaan la Ngunjaan falu ko tegu ko leneen sunu borom def ko may war may wërsëg muy liggéey am alalam di yéena Ngunjaan di ñëw di jàppale waa Ngunjaan kon kooku képp koo xame ne soxoroo nga jóg pour jàppale Ngoundiane am ambition politique da ko war a talal loxo ngeen am war a mën a liggéey Ngoundiane looloo tax ci instruction yi claire yi nga xamante ne dañ ko jot donc bëgg nañu yaatal coalition Benno Bokk Yaakaar képp koo xam ne mu ngi ci mën lay talal loxo mais képp koo xamante ne nekkoo ci coalition bi sax to pare nga pour jàppale Macky Sall sunu ananoo nga loolu dafa war a leer parce que lu ñuy yokkal moo ñu gënal lu ñuy wàññil loolu lu ku baax lu koy ku koy def da nga ko war a gërëm da nga ko war a sant kon kon ngàcci nga la ma bay fay ñu ngi lay talal loxo pour ànd ak yow pour véritablement li fi nekk Ngoundiane ñu jële ko pour indi fi leneen mes chers les journalistes également ñu ngi leen di remercier Babacar